sant ak ngërëm ñel na leen yéen ñi nga xam ne yéenee safoo seen bii di Buzz Actu 221 daanaka li ñëpp doon xaar daal nay sotti ci ginnaaw bi nga xamee moom njiitalu Pastef les patriotes di président Ousmane Sonko nekkoon li nga xam ni moo di premier ministre ci mim réew di Sénégal daal nay xam ne le moom fu mu téye la daal di téye nee na ngooy ñàpp jàpp bu baax a baax ki nga xam moo di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaye nekk ci li nga xam moo di pouvoir exécutif bi ci ginnaaw bi nga xam ne lenn ci ay société civile ñu ngi ko doon xaar bu baax a baax ci li nga xam ni moo di pouvoir législatif bi la ngir kat mu doon li nga xam ni moo di président assemblée nationale waaye ca loolee jamono mun nañ ne moom dafa daal di mel ni ku daal di tabb kenn ci ay jegeñaaleem ndax kat ki nga xam ni moo fi nekkoon ministre bu yor wàllum dem beeg dikk bi ci jaww ji ak ci suuf kilee moom El Malick Ndiaye moom daal moom mujjee nekk li nga xam ni jamono gi ñuy waxe ak yéen président assemblée nationale nationale bis ni tey yemoo altine la 2 décembre deux vingt 2024 waaye ca loolee mën nañ ne présidente groupe euh, yi nga xam ni moo daal di am jamono guñ toll nii ki nga xam ni moo di ay dafee moo fa daal di nekk comme groupe parlementaire waaye bi des ni présidente groupe parle groupe parlementaire bu taxawu wallu ki nga xam moo di Aïssata Tall Sall moo daal di nekk foofu kon nag ci jamono gu ñu waxee ak yéen président yi lee président assemblée nationale bis ni tey 2 décembre 2024 ki nga xam ne moo di El Malick Ndiaye bokk parti bi di Pastef les patriotes moo daal di nekk président assemblée nationale waaye Ayib Daffé moo dal di nekk président groupe Euh, président bu groupe parlementaire bu li nga xam ni moo di bu Pastef les patriotes foofee nga xam ne moo di takku wàllu ki nga xam ne moo di présidente bi lee mën nañ ne Aïssata Tall Sall moo ko daal di nekk ci boobu la jamono mën nañ ne depuis que ñu am li nga xam ni moo di indépendance mim réew di Sénégal nekk 1960 ba tey jii nekk 15e législature bi lee ñii ñoo fi faral nekkoon li nga xam ne moo di président assemblée nationale ndax kat ginnaaw bi nga xamee Sénégal ñu am nañ indépendance depuis 1961 ba 1968 kii di Lamine Gueye moo nekkoon président assemblée nationale waaye 1968 ba jàpp 1983 ki nga xam ni moo di Amadou Cissé Dia moo ko daal di doonoon waaye ci 1983 ba jàpp 1984 ki ñuy wax monsieur Ayib. monsieur Habib Thiam moo ko daal di doon ba léegi mën nañ ne 1984 ba jàpp 1988 ki ñu daal di wax Doudou saw moo ko daal di doon waaye ca loolee 1988 ba jàpp 1993 ki ñuy wax Abdoul Aziz Ndaw moo ko daal di doon ci 1993 ba jàpp 2001 ki daal di wax Abdoul Khadir Sissoko moo ko daal di doon waaye nag mën nañ ne président assemblée 2001 ba jàpp 2002 ki ñu daal ki ñu daal di wax Youssou Diagne moo ko daal di doon ba loolee sax mën nañ ne 2002 ba 2007 ki ñu daal di wax monsieur Pape Diop moo daal nekkoon président assemblée nationale waaye ci 2007 ba jàpp 2008 moom mi fi nekkoon président de la république nekkoon njiitul APR bokkoon ci pouvoir bi la di alliance pour la république waaye tamit nekkoon ci bi nga xam ni moo di coalition bii di benn bokk yaakaar di président Macky Sall moo daal di nekkoon 2007 ba 2008 li nga xam moo di président assemblée nationale waaye ci président 2008 2012 bi lee moom kii moo ko daal di wuutu woon Bassirou Mamadou Seck moom moo daal nekkoon président assemblée nationale waaye 2012 ba jàpp 2022 moom mu nga xam ni moo fi nekkoon di Moustapha Niass moo ko daal di doonoon te loolee mën nañ ne 2002 ba 2022 ba jàpp 2024 ki nga xam ni moo di Amadou Mame Diop moo ko daal di wuutu ba keroog ki nga xam ni moo di président Bassirou Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di tas assemblée bi ngir kat gis ni li mu soxla ak li mu bëgg assemblée boobee bu assemblée Macky Sall bi du moo ko mën a jox ba tax nag ginnaaw ba mu ko tasee loolee daal di woote li nga xam ni moo di ak élection élection législative anticipée ca loolee ba mu daal di amee askanu Sénégal daal di wot vote ci biir réew ak biti réew ci lañ daal jox majorité absolue ñi nga xam ne ñoo di pouvoir bile waaye ca loolee daal jox ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko li nga xam ni moom la doon laaj ci Pastef les patriotes ci lu tolloo 130 députés ba tey ji la ñu daal di war a tabboon ginnaaw bee loolu président de la république daal di xamle bis ni tey nañu woote li première session ba loolee ba ñuy waxee ak yéen tëre loolee lañ daal di nekkoon ci lu jëm ci wàllum assemblée national ba sax mën nañ ne ci lañ daal di nommé ki nga xam ni moo di président assemblée di wéeturu El Malick mi fi nekkoon ministre bi yol wàllum biir jaww ji ak suuf gi waaye nag ci loolee mën nañ ne nag jamono guñ toll nii jàppale ni bu baax a baax ci mim réew di Sénégal 2004 gi ñu nekk nii ba 5 war a ñu ngi xool bu baax a baax El Malick moo faral na war nekk li nga xam moo di président bu assemblée nationale moom El Malick bokk ci membre Pastef Pastef fle patriotes waaye nag ci loolee groupe groupe président groupe parlementaire yi lépp mën na ne ki nga xam ni moo di Ayib Daffé moo fa daal di nekk bu Pastef les patriotes fi nga xam ni moo di groupe présidente groupe parlementaire bu euh, takku wàllu kii di maître Aïssata Tall Sall moo ko daal di nekk bu leen di fàtte abonné aimé partagé commentaire like ndax kat saa su ne lu fi information xibaar ñu nekk indil di wax ni 15e législature bi yàlla nekk 15e législature bi xam ni gën ci Sénégal gi la salaamaaleykum wa rahmatullah taala